kon gone yi nga xam ne noo bokk ànd ak ñoom daje fii jaamu yàlla liggéey yar ak ak taalibe rekk boole ñoo ñoom. ci liggéey bi ci la sax ba ni mu génnee àddina ci àjjuma ji dëppook ñaar fukki fan ñaar ci janvier atum 2021 ci bi mu amee juróom ñaar fukki at. Sëriñ atu Diagne liggéey bi nga xam ne def na ko ci yoonu murit bi xibaar bi tàmbale siiw mbooleem taalibe yi kenn ku ci nekk dem ca daara xisbu tarxiya ngir fas yéene ànd ak ñoom metit wi ak tiis wi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ku ko xam xam koog waa daara xisbu tarxiya ak ni nga xam ne taxawoon na ko ak sëriñ Atou Diagne moo tax lii bi mu amee rek sëriñ bi xamle ne kenn doyu ko ci taxaw gi ku dul boppam moo tax bi ñu xëyee rek la ñëw ci daara Hizbut Tarqiyyah ànd ak Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ak yeneeni kilifa ngir taxawu Serigne atu Diagne fas yéene ko jébbal suñu boroom mbooloo mi tàmbalee bëri ci daara Hizbut Tarqiyyah kilifa yu bëree bari daal di fay teew ngir kóllëre goo xam ne doxoon na seen digganteeg Serigne Atou Diagne. bismillah ak daara yàllaaw safi baqaa bi li fiika yàllaaw bismillaahi fii niin ak daara yàllaaw safi baqaa bi li fiika yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sariika law وسي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي taalibe yi tàmbalee jàng alxuraanul karim ci limu kaamil yu takku lool xaside yi di jib kuréel gi di jàng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 إذ ginnaaw bi ñu jullee jumaa it kilifa yu bëree bari teew nañ fi ànd kook waa daara isbu tarxiya ngir fas yéene waajal sëriñ Atou Diagne daal di koy jébbal sunu borom ca bàq ya bi ñu jullee tàkkusaan ba noppi rek ci la sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru xalif général des mourides daal di génn ñu waajal ko daldi koy jullee ngir fas yéene ko dem jébbal sunu boroom julli gi nag la fa teewoon ci mbooloo takku na lool ñoom ñëpp sax ñoo àndandoo gunge ko ba ca bàqiya isan yuqallidu li takrim yàllaaw ajbartali inakal jabaar doona li xan كل انقضاء بلاسي اللي اخترته يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بلاسي اللي اخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل يا متكبر birurul talkul ya allah ya xaaliqal xalqi luqma asa abadan bil birri wa safi wa rilwan ya allah ya bari al xalqi qut lina wa xun liyal ajralil janaati yàllaaw antal musawiru qal lilil nabi busaaran wasawiran liyado nal makri yàllaaw xalaata li kula san bin xat ataytu bi lisat bi sukriya خضار يا الله خاتلي ربيعك دعي بلا سبب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي فلا كسك ريايا وابو يا الله لغوت أزمان اللج يا من له أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله ألم تنل قيبات قاست منتميئا أتى الأليم لاسي ألمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت لخيرنا وياك الأدار يا الله بذات يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباسطة داري يا الله بسطت يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مباسطة داري يا الله قبلت يا قافل الأداء لي وما لو لخيرنا في بقصد منك يا الله رضاك يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رضاك مرتباتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رماك يا رافع دارني مرتباتي بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت الميس لاسي لا ستئست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 خمرته وخدت لي منك الملقي به الله عفى الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأم لي لقي ريده ريا الله عفى العظيم لاسي بان لزامته لخوت فلن أسي من منك يا الله أرضى الغرار لاسي لقط مغفرة مات ويو برادي عنك يا الله أنت ذكر لاسي كلي لديك ريدا ولي سكر تجمي أسه يا الله أنا لا يلاسي أحليتني أبدا بغير مكر ولي على التحيا الله أنا الكبير لاسي بانت كبارة lii qutamin ka kabbi alal ajri yàllaaw antal kabiru la si baanat ka baaratu woo li qutamin ka kabbi alal ajri yàllaaw antal afiisu la si wajaata fi abadin ilaa siwaayal idaa والضر يا الله أنت المقيت الذي خلقت لي رقادم بلا إصاب إلا الجنات يا الله أنت الأسيب الذي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآسى والكد